Kajoor dafa jël soxna su baax suñuy wax maam Paye Faye mhm. am ak moom Sidi Lamine ak Abdourahman mhm. bi mu fi ab euh, diir dafa mel ni am na ku ci ligne bi ñu mhm. dafa am ku nekk ci ci ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum aleykum salaam sëñ bi nuyu nañ la allo allo ñu ngi leen di dégg ñu ngi lay nuyu sëñ bi waaw ñu ngi lay fay bu baax a baax a baax macha allah ah bég naa kooku bu wootee mel na ni xalifa bi moo wootee kii mooy annaatiqu rasmil qawm ah mooy porte parole u kër ga mhm. cheikh abdourahman ibnu sëriñ mouhamad buuna ibnu sëriñ dànq buuna maam wuldu cheikh alxalifa ibnu maam cheikh bun ama macha allah sëriñ bi ñu ngi lay fay nuyoo waaleyka salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu waaw maara bu gënee fort ñu gën a dégg bu baax incha allah aha cheikh bi. sëriñ bi ñu ngi lay ziara. wallaay ñu ngi leen di delloo ziar bi di leen ndokkeel itam. alhamdulilah fan yu mujj yi nga xam ni ci la yàlla di goreel lenn ci ay jaamam ñu waroon a dem safaram yóbbu leen ajana yal na yàlla boole leen ci boole ñu ci. amiin boole ci umma bi. amiin ci barke yonent bi alayhi salaatu wa salaam. Uh-huh. amin amin Konte. ci ñoom itam ñu ngi leen di jottali ñu nuyoo xalif général bu Qadiriya al Kuntiya di Cheikh al Bekaay ibnu Cheikh al Bekaay di leen jottali itam ndokkeelam di ko ndokkeel waa réew waaye itam di ndokkeel naw lay diine ñi nga xam tey du nga leen sant ci nuyu bu tedd bi nga leen nuyu ñu nuyu askanu Sénégal ñu jiite nañu leen ñaanal jàmm ak dal waaye itam di ñaan ci fan yi nga xam ci la koor bi waaj a jeexee te yàlla dëxañ ci guddi goo xam ne guddi laylatul qadr la ñu ñaan yàlla tey mu doon ko tey ñu dajeeg moom. amiin yàlla jële ci mbas ci àddina. amiin amiin amiin amiin. ba ñëpp delluwaat ci seen i activité Sénégal moom rek la am te ñoom ñëpp ci askanu Sénégal ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te lépp loo xam ni tey dañ koy waxtaane mu war a doon ci waxukaay yu mel nii ngeen toogee. la ca nit ñu baax ñu yaakaar Sénégal yi yëpp yaakaar ko ci mooy loo xam ne day delloowaat bokk bi fa mu nekkoon tënk dëgëral bokk bi dëgëral kóllëre gi nga xam ne moo am ak jëf yu rafet bi nga xam ne amoon na ci maam yu baax yi ak baay yu baax yi mm-hmm. lislaam nag foofu nga toog tey di ko waxtaani ñëpp la boole mm-hmm. xëy na ku toog itam nga am ci loo toogee ñu joxoñ la bi nga ca wax waaye mu mu xam rek ni lépp loo xam baax la te mu nekkoon ci Cheikh Abdou Mouhamed Kounta mi sant Ndiassane ci 1883. ci bàyyam bu tedd bi nga xam ne moo sanc ndàll ci 1800 te nga wax jaar-jaaral te ba mu ñëw itam ba mu daataan ak si ndaal ñu jaar dëkk boobu ñu wax alwaat ci alwaar bi nga xam ne ni foofu la Cheikh Moussa Foutiyou Tall. Mhm. gane àddina. Mhm. te booba itam jotagul jëf ndax booba ndaw la te jotagul jëf mu toog ab diir soog a continuer ñëw ndar. Mhm. te ba mu fay jógee itam ci li histoire nekk bi seen gawlu bu ñu wax malal dem ba tàkko jabaay. te muy te muy gawlu faaleen moo ko xool am dëgg barke ak ñaan bu nangu mu ànd ak moom gunge ko. Mhm. ba ñu ñëwee ban ba ñu ñëwee ban la. Mhm. ci la ko indi. Mhm. xame la ko nit bu baax ñi nga xam ne ñoo nekk ndax bokk na ci gunóor daal di teg waaye mu bokk ci itam nag ak Abou Bagdadi Chérif mi nga xam ni. moo doon denc suñuy wax Roqayo Kumba Chérif. yàlla dogal ko ko jiitu moom Roqayo Kumba Chérif mu des ko Roqayo Kumba Chérif mooy kan. mooy Rokhaya Kumba ay suta taal mm-hmm. moom la ñuy wax mooy bàjjenu Cheikh Oumar Foutiyou Tall mm-hmm. moom la Cheikh Mounama Kounta jël am ci taawam di Cheikh al Bekaay ba mu sañce loolu du bokk boo xam soo ko seetee itam ci yeneen këru diine noonu rek la dem moo tax Sénégal daf ci benn ndab loo xam loo ko ba ciy dugg di tibb dafa war a set mm-hmm. ndax bu set dina xajamal ndab senegal Sénégal bindawul loolu Sénégal ay valeur la yor lu jiitu sax lislaam di ñëw rawatina nag bi lislaam di ñëwee ñëpp bokk ndey ñëpp bokk bàyyi. macha allah taatu mango la su baree ay bàngaas te taat bi di benn bàngaas yi bari ñu te lool ci dagg benn taat benn benn doomu mango ci benn bàngaas bu féete soow ñam ko lekk ko ñu man maa dàqale maa gën le mango dafa saalis rek waaye ku ma xam ne ni taat yi benn la loolu li ma ci nam mooy mboolem tariqa yi nga xam ne tey ñoo nekk fii ci biir réew mi seen cosaan benn la muy l'islam ku ci taxaw ci ko rek ci tariqa kon ñoom ñëpp ci baatu laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah ci kenn ku ci nekk ak ngay duggee waaye foo mën di duggee ci gàtt bi ngay dellu si waat muy l'islam bi ci bopp kon ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi foofu danañ fa insister trop ndax fi àdduna bi toll réew mi toll fi ñu soxla ko askan wi soxla ko mooy benn te it yaakaar naa ni mhm. jàngoro ji yàlla nattoo tey àdduna bi mhm. nattoo ko itam Sénégal mone nañ ci ak benn boo xam mhm. dafa war a dugg ci xol yi waaye warul yem rek ci cër yi muy benn boo xam ne ñëpp bokk nañ taxaw nañ àndandoo dootu ci benn kàddu boo xam ne ñoom ñëpp dañoo dàkku ni lii mbas la dañ ko war a xeex ñu jóge fi. wallaay ndeysaan. kenn ku ci nekk nag. Mm-hmm. taxaw nga taxawaayu góor. Mm-hmm. taxawaayu jullit. Mm-hmm. taxawaayu koo xam ne mat na li nga doon. loolee nag. bu jàllee ci xol yi rek ñu ko Sénégal. Sénégal day daal di nekk. day daal di gën a amaat dal. gën a amaat jàmm. Damel Birima Fatma Thioub moom nga waxoon ni mooy téy ku ne xam ne waa ci téy ci bawal. moom la ñuy askanale buur te itam xam nañu ne Kajoor 33 dammeel ñoo fi mas di nekk ñoo fi nekkoon dina ma fàtt ma cubb bu ma leeral lépp waaye damay ji ku ne xam na la taxoon mu jóge Kajoor dem Bawol historiens yi xam nañ ko bu baax li ci jotale nag Cheikh Boun Alma Kounta wala boog li jotale biir ma fàtt ma cubb ci Cheikh Boun Alma Kounta comme ni nga ko waxee yow Cheikh mooy Ndiobia Penda Fall moom nga xam ne fekke woon na jëf jooju nga xam ne amoon na ci jamono Cheikh mu amoon ci fas yi nga xam ni dellu siwaat na gannaaw bi ko buur bi may xàcc ba noppi ci la dagge caqub kooram jox ko ko addiye mhm. daal di yónnee nag ci biir ma Fatma Cubb ne ko gis naa fi koo xam ne day bu ngeen jëflante ci yàlla la la nga bëggoon kat yow dañ ko am loolu moo tax birima woo ko Bakari ñu dem fekk ko bawal ñu wax ko soxlaam ñu jox ko ay tegtal bokk na ci tegtal yi ne na ko guddi gii am na si benn soxna boo xam ne ëmb na dina indi doom bu góor lay doon nanga ma ko tudd muy dem ñaareel bi nee ko bu ñu demee bu guddi ci xaaj jëm fajar ah, dina am ngelaw lu rëy loo xam ne dana ñëw dana am néeg yu daal waaye bu ñu demee ba nga xam ne nag jant bi fenk na toll ci yor-yor ay ndaw dana ñëw ne la ka jooroon lekk baatu Kajoor ngay xaar te biruma nekk bawal am na lu muy tekki ci histoire loolu def na historien yi te surtout googu nga xam ni toog na ak yow sànq te mu doon laajte tubarkalla macha allah euh, ku xam ku xam histoire la ñu yaakaar naa loolu moom ci dugg dina ko mën a faram fàcce bu baax. Mm-hmm. biruma moom nag bi nga xamee ni ñëw na moom Kajoor ñu dem ba yàgg bu bëgg a moomaale bawal. ba mu waxee Cheikh Boun Ama Fouta daf ko ren doo ko man bàyyi ko mu ne ko naar bi soo ma soo ma ñaanalee ma man dégg topp ko nag Cheikh Boun Ama ne ko doo ko man mu ne ko a ah kay soo ma ñaanalee ma man ci la bind benn téere jox ko na ko lokk ko te bu ko yàgg xam ba ñu dajee foofu ñu daje muy xarsan ci boppam. waaw xasaar naa. bi nga xam ne nii nga xam ne ànd na. Mm-hmm. nga ak. Euh, euh, euh, Faxangaati. ànd na ak. Faxangaati Diop. théâtre yi nga xam ne mooy ñëw di xeex ak Birima Fatou Koutié. dégg nga di ko tagg di ko tagg ci la Birima mere nag daal di guusu tere. moo tax première attaque mhm. mhm. ci ñaareelu attaque ci déwén la. ci la Birima moomee loolu ñu tuddee bawal. Mhm. ñu tuddee ko dammeel. muy wàllu Kajoor. teeñ di wàllu bawal. loolu ñu ko bind ci benn histoire benn téere histoire bo xam ne suñu way ji bu baax mhm. bu ñuy wax Cheikh Mouhamed Bouna Kounta moo ko bind xeetu xeetu xeetu xeetu Kaashiful Ghamaami wal ilmu an hayaati Cheikh Ibn Amar mhm. noonu la ko tuddee mhm. ci la indi histoire bu Cheikh Ibn ak jëflante yi nga xam ne jëflante na ko jur yooyu nga xam ne nekkoon na fi. Mhm. Cheikh Bounama itam yàlla dimbale ko. Mhm. bépp jur boo xam ne mos na fee nekk fii ci réew mi rek am lente naag moom jàmm fekkante ak moom rek. Mhm. ba ay soxnaam yu ci ëpp doole yëpp doomi buur lañu. loolu moo tax ñu yor ni kunte yi mbokk yëpp lañ. loolu. kon. waay waay waay waay sëriñ bi toogaay farankalaayu la. sëriñ bi toogaayu mbokk la. Mhm. toogaayu joxe xol la. macha allah toogaayu joxe loxo la. sëriñ bi ñëpp nekk benn. macha allah xalifa nga xam ne toog na itam. sëriñ bi yaa ngi ñuy dégg. première déclaration bi mu njëkk a mhm. moo di dafa woote. ni moom day jox na ay nawleen jox askanu Sénégal loxoy xolam. ñëpp nekk benn. sëriñ bi yaa ngi ñuy dégg. loolu dama woote ci dama si nekk. macha bu fekkee yaa ngi dégg sëriñ bi. waaw. Euh, jotaay bi ñun ak yow la ba mu jeex incha allahu taala ndax euh, tey seex bu bu ñëwee ci euh, lu mel ni grand plateau. ñëwal mm-hmm. kër Kunta gépp ki nga xamante ni mooy porte parole ba yore kàddu kër ga dugg nii ci émission bi nekk na lu rëy. Mm-hmm. tey mm-hmm. ñëpp ngi déglu Pambay Peex moom it nee na. léegi nii Cheikh bu daf koo daaneel dafa bëgg dugg léegi moom it ci ci émission bi. naa bu ñu demee gis-gis ba dellu si yow dangay ngay da ngay duggaat léegi. waaye Pambay Peex day dugg. ndax nee na Cheikh bu daf ko daane léegi ci histoire mhm. nee na jéem na dugg crédit bi mu yor mujj gi sama téléphone lay woote man ko dinañ la dugal insha allahu taala papa may ngi dugg si léegi ñu bàyyi la nga nga nga nga nuyu sëriñ bi bi daal daw dee insha allah damay damay rek pour gën a euh, encouragé Cheikh bi macha allah nga xam ne toog jërëjëf Kunte doom dégg nga deful boppam doom mais taaliba la def boppam dundam yëpp itam mi ngi ci lislaam waaye dundam yëpp itam mi ngi ko suuxante tariqatu qadriya ci la mos di nekk kon yàlla bu baax. di dem fële eh, ñoom Père Mbaye Ngoné incha allah. barakallah ah, sëriñ bi ñu ngi kontaan. di wax ni wax dëgg yàlla sunu xol sedd na guy. am na eh, émission daa am nu muy doxe waaye kon eh, buñ ko fi yamale woon it man damay yëg ni kontaan na. ndax ku nu sant laa may def. manuma xawma amuma. olof wax ni ku ñu tingoom nga sut kala tingoom waaye bul fàtte ni ay tànkam ngay doxe bu la bàyyee nga daanu te seen maamu ñu tingoom yal na yàlla dolli sa jàmm kunte macha allah ay ci ñu ngi dellu si at léegi euh, Chérif Adramé